kii kan la gisandoo nañ image bi li mën a wax ci moom mooy entrepreneur la li mën a wax ci mooy mooy koo xamante royukaay la fii ci suñu réew ñun jeunes en tout cas dañ koy roy bu baax a baax parce que képp kuy jeune bëgg nga mel comme moom alors mon consultant ñu daal di découvrir ndoo image bi daal di xool kan moo doon làkku ci ginnaaw en tout cas jox naa leen indice bi <coughs> alors kii mooy monsieur le ministre euh, Aly Ngouille Ndiaye alors moom mooy ministre de l'industrie et des mines donc moom moo nekkoon ci photo bi gis nañ ñi nga xamante ni noonu ngeen tontuwee ci euh, ci page Facebook bi l'Oeil du Tigre gis nañ ñi nga xamante ni moom ngeen ci commenté mu li firndeel que xam ngeen bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bi di ci def liggéey bu nice di ci bu rafet donc kii mooy Aly Ngouille Ndiaye mm-hmm. léegi nag moo ma bàyyi la ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo gars yi ñoom ñoo bind mm-hmm. di xam ne El Hadji Diop nee na Moustapha Gueye Tigre de Fass kii moom Aliou Ngouye la. Mhm. Mouhamadou Mouhamadou Diagne tamit nee na ha le champion. Mhm. des champions. le seul lutteur le seul lutteur qui m'a fait pleurer ndeysaan Massaka Baal ma xam mais xam naa ñàkkul tam reetaan na jooy nga ba tey reetaan nga tey. celui là monsieur Moustapha Gueye celui qui. celui ministre Aliou Ngouye Ndiaye. ndeysaan ki ci tam tudd Modou. sëy ah. Mhm. mais nous sommes fans de l'œil du tigre. Mhm. particulièrement Père Tafa Gueye Aliou Ngouille la le vrai Jolof Jolof. ki ki ci topp tudd Omar Diagne Omar Diagne plutôt nee na Fama kii moom c'est l'homme du Jolof ministre Aliou Ngouille Ndiaye. ah waaw boo bëggee sa réew da nga koy wane tamit Fama yow la adressé na Fama kii papa Aliou Ngouille waaw li ma bëgg seen consultant. ba luñ lay dàkkantalee rek dañ koy booleeg li nga xamante ni moom nga doon Aly Ngouille Ndiaye la le ah. vrai Jolof Jolof moom la Alioune Boy wax mhm. Abdoulaye na Aly Ngouille Ndiaye la le maire de Jolof et ministre des mines mhm. bul lijjanti <laughs> ah, ki baadu iso Kébé sama chéri bi xam na faama kii Aly Ngouille kii père Aly Ngouille Ndiaye la <laughs> uh-huh. Moustapha sama turandoo na j'aime votre émission L'Oeil Tigre moo yëngal jamono mais kii Aly Ngouille Ndiaye la. jaas xale xanaa neex nee na kii Aly Ngouille Ndiaye la waaw xale xanaa neex moom. Oh. Assane Ndiaye tam nee faama kii Aly nguy Ndiaye la mais faama ku bañ yàlla na dee faama kenn bañu ko bu kenn dee nag. waaye kenn bañu ko ah, kii Aly Ngouille Ndiaye la nee na. moom la Paco Galzad Dieng wax. Mhm. Aly Nguy Ndiaye la Pape Diagne tam moom la wax. Mhm. Mbouck Bounama tam nee na kii Aly Nguy Ndiaye la. Aly Nguy Ndiaye la moom la Cheikh Ndiaye wax tamit.